ñu bëgg a ñëwaat ak yéen rek di ànd ak yéen ci bind yi nga xam ne moom lañu baaxoo ànd ak yéen ci ay bis bu ne mu aju ci téereb sëriñ bi radiallahu anhu bi nga xam ne moom la tudde nahju qadaa il xaaj te lépp sëriñ bi di ci jàngale li nga xam ne mooy ay teggiin waaye lépp sëriñ bi di ci jàngale li nga xam ne mooy jëflante bu rafet boo xam ne moom la doomu aadama yi war di jëflante ci seen diggante ci bind bi weesu nag ñi ngi taxawoon fi nga xam ne fi la bi di waxe ne na nga tàmmal saw làmmiñ wax yiw ngir nga man caa am barke waaye ngir nga man caa am bénéfice waaye ngir nga man caa am payuk suñu boroom kon nanga nga ba saw làmmeñ nga tàmmal ko lu lu baax ci loolu ci la ñuy continuer rek ci fi ñu yemoon keroog sëriñ bi da wax ne fii kulli shay'in taata ma sananta lahu fi l wa sharri wa sharri fanzur kayfa tasdaadu na nga fexe saw làmmeñ gi wax lu baax ci loo xam ne ci ngay dollikoo ci aw yiw waaye ci loo xam ne ci ngay mucce ci li nga xam ne mooy wax ju bon wala jëf ju bon kon na ngay seet foo man di tollu looy dollikoo waaye bul def mukk loo xam ne daf lay wàññi wala ngay wax ci saw làmmiñ loo xam ne eh, daf lay wàññi muy continuer ba tey mune ne wamshi na ngay dox li ajli xaajatin ngir aajo duuna ixtiyaal ci lu dul daagu fal ixtiyaalu naka daagu de jaalibun aji bijj la maanaam aji yóbbe la ila nakaal jëm ci mbugal sëriñ bi radiallahu anhu nee na booy dox de na ngay dox ngir aajo maanaam soo jugee bay dox na la tax di dox waaye booy dox na nga fexey ba bul daagu maanaam di dox di jaayu di dox di wane ne nii laa mel wala yu demee noonu nañ ko moytandiku bu baax a baax ndax sëriñ bi nee na loolu ci mbugal rek lay jëme euh, nit ki kon nit ki war naa fexe ba buy dox muy sàmmonte ak xam ne suuf si nga xam ne ci lay dox mbindeefum yàlla la moo ko sàkk tàggatal ko ko ba mën cee dox te du am benn jafe-jafe kon war nay xelaat ci loolu waaye warul di xelaat di dox di daagu wala muy euh, rëy rëylu ci kaw suuf wala yépp yoo xam ne moo aju ci luy nuru puukarewu nit ki daf ko war di moytandi ko bu baax a baax su dee dox ci kaw suuf xam ne li dox jaamu yàlla la te it euh, suñu boroom moo ko tàggatal bam mu mën cee dox du am benn jafe-jafe ndax suñu boroom bi subhaanahu wa taala mi ngi wax ci alquran ne wala tamshi fil ardi marahan naka lan taxriqal arda walan tabluxal jibaala tuula nee na bul dox ci kaw suuf si mukk di yëqamtiku wala ngay rëy wala ngay bonde yu demee noonu ndax nee na mënoo koo def ba bënn suuf si mënoo koo def ba xar suuf si te it mënoo bonde di yëqamtikoo ko jug ba sut euh, li nga xam ne mooy montagne yi ab taxawaay kon loolu li muy tegtale ne mooy nit ki suy dox ci kaw suuf dafa war di toroxlu waaye dafa war di xelaat ne moom ñii lii muy dox suñu borom moo ko tàggatal waaye du kàttan goo xam ne moo tax mu man ci dox sëriñ bi di continuer ba tey ne laa tadxakan na bul di ree ad dahra jann jamono min xayri ajab ci lu dut lu kéemtaane wala tamil te bul di jeng lil mashi jëm ci ak dox min xeyre arabin ci dut aajo sëriñ bi radiyallahu anhu na bul di ree mukk ci jamono ci loo xam ne du aajo maanaam loo xam ne yéemewut te du aajo bul ci di ree mukk te saa boo demee ba gis loo xam ne aajo la nga war cee ree wala nga war cee euh, bég nee na bu boobaa sa mbégte na ko feeñale ci muuñ rek waaye bul di ree Euh, bul di ree di xàqataay wala yu demee noonu te saa boo demee bay ree na la na la lu euh, yéeme taxaree waaye bul def foo tollu rek di ree ci loo xam ne aajo taxut kon nit ki buy ree aajo war naa tax muy ree ni ki noonu tamit nee na bul dox di jeng mukk wala bul jeng mukk jëm ci ak dox euh, ci lu dul maanaam nit ki jug rek di dox di dem amul jenn aajo moom daal day taxawaalu rek di wëndeelu di dem sëriñ bi na na loolu bokkul ci ay teggi nit ki saa bu jugee dafa war a am loo xam ne moo ko yëkkati loo xam ne ca lay dox jëm kon nañu sàmmonte teggin yooyu bu baax a baax ñuy fexey bu ñuy ree ñuy ree ci loo xam ne aajo la waaye it ñuy fexe bu ñuy ree ñuy ñuy muuñ ndax alquran mi ngi wax ne fal yadxaku xalilan na bu ngeen di ree de na ngeen ree tuuti waaye bu leen bu leen ree bari kon loolu li muy tegtale mooy ree yu bari baaxut ndax waxoon nañ ko ca ginnaaw ne fa kasratu daxki tumiitul xalba bari looy ree day ray ab xol maanaam nit ki fu mu toll di xàqataay di ree day rey ab xol day fàtteloo nit ki yàlla ngir euh, dàqoonte ak teggin gi nga xam ne moom la dàqoonte ak teggi mu ne wala takun bul nekk tafitan di aji geestu bila talab ci lu dut aajo maanaam ci lu dut yittewoo fa kullu ji ne na yii yëpp ak ndof la ak dese la naafat dàqonte na adab ay teggin nee na bul bari mukk di di geestu maanaam footol di geestu di geestu gauche di geestu droite di geestu ci sa ginnaaw fu ne ngay geestu di fa awale te amoo jenn aajo ju ko tax di def nee na loolu lépp màndargala moo xam ne day wone ak dese waaye màndargala moo xam ne day wone ak matadi goo xam ne nit ki matadi na ko waaye màndarga moo xam ne dafa dàqoonteeg ay teggiin nit ki saa bu koy def fu mu toll euh, dañuy jàpp ne kii ay tegginam des na bu baax a baax a baax kon nit ki saa bu ne balaa gestu euh, buy dox di gestu wala yooyu yëpp nay fexey ba sàmmoonte ak euh, teggin yooyu nga xam ne lépp lu dul aajo rek du gestu jëm ca maanaam saabu bu gestoo rek dafa am aajo ngir euh, ngir faj aajo jooja mu ne wala taksif bul wuññi an sara wiilika walif say yére maanaam walif say pantalon abat ba faw fa innahu naka loolu min tarki aadaabin bokk na ci bàyyi ay teggin yuad jooj dees na ko limaale nena na wuñ ni mukk say say say yére maanaam ngay uh, toog ba mu yàgg rek nga aj sa mbubb sa jumbax di feeñ wala ngay nga aj say tuway say say say say say uh, pooj di feeñ ci loo xam ne jenn aajo taxu koo jug dara taxu koo jug nee na loolu bul ko def mukk ndax loolu dafa dàqoonte ay teggiin ndax bokkut ci ay teggi nit ki di ko di ko def moo tax mu ne wa te loolu nag muy di wuññi sa yére wala yu demee noonu wala ngay aj say mbubb sa jumbax di feeñ wala yu demee noonu ne na yuraa na ko gis min chiamil ashraari mu bokk ca gën gaa ñaawi jikko gën gaa yéesi jikko fu saaqe xasaani gàddu gu tudd xasaan zawil idbaari mi nga xam ne ñoo dëddu aw yiw ne loolu gàdd gu tudd xasaan ñoom ñoo ko daan def te loolu dafa bokk ci li nga xam ne dafa dàqoonteeg ay teggiin waaye dafa dàqoonteeg sàkku aw yiw kon nit ki bu bëggee sàmmoonteeg ay teggiin dëgg-dëgg bu def fu mu toll di wuññi ay cëram ñu koy gis ndax loolu dafa dàqoonteeg ay teggiin te euh, gàdd ga tudd xasaan ñoom ñoo ko daan def bañ euh, mujj di leen ko askanale mu ne wax nanga moytandiku minal kashfi ci wuññi anil batni walif sa biir kaza niki noonu maa bayna surrati la nekk ca diggante jumbax ba wa rukbati ak bëti om ba lisa ngir loolu fa innahu naka moom simatun melo lil xumqi ñeel ak matadi ñeel ak manki wal jahli ak réer wa xillatil muruati ak niiw mbañum rus almuazzama jadi aji màgg nena nanga na nga moytandiku na nga sàmmonte ak di bañ wuñ ni li nga xam ne mooy sa biir maanaam di aj sa yére ba sa biir di feeñ wala ngay aj sa yére ba sa jumbax di feeñ nena li daggee ci sa jumbax ba ci say bëti oom na nga di ko euh, di ko sàng na nga fexey di ko aar nanga nga di ko di ko suturlu ba euh, kenn du ko gis ci lu dul aajo ndax nee na loolu dafa bokk ci màndargam réer waaye dafa bokk ci màndargam dof waaye dafa bokk ci màndargaam matadi dafa bokk ci màndargaam waaye tey dafa dàqonte ak li nga xam ne mooy bañum rus kon nit ki war naa fexe ba euh, di sàmmonte ci ay teggiinam di bañ di wuññi li nga xam ne mooy ay ay cëram ba ku ko wërta gis di ko euh, di ko gis loolu nag eh, suñu waxee ma bayna surrati wa rukba eh, loolu dañuy wax ne góor moom la awraam tollu foofu li tàmbalee ci jumbax ba ci bëti waaye bu dee jigéen moom dañ naa léppam daf ko war a daf ko war a muur daf ko war a muur bam des ay eh, loxoom muy tenq yi ak li nga xam ne mooy xarxanam kon nit ki war nay sàmmonte teggiin yi nga xam ne moo war digganteem ak aw yaramam mu koy suturla bu baax di ko di ko sàng moo tax mu ne is ngir hiya moom mbañum rus uxtu diini mooy mbokkum diini xay su fuqidat foo ko ñàkkee rek laa yujadu diin doo am diine kama sabat ni ko mu saxe anhum ci ñoom nee mbañum ruus de mooy li nga xam ne mooy mbokkum diine maanaam bu fekkoon ne diine dafa am mbokk dañ naa mbañum rus mooy mbokkum diine maanaam di am nit ki di am lu muy ruus di am lu muy sedd loolu dañuy wax ne moom mooy mbokkum diine saa boo xamee ne ñàkk nga kersa nag maanaam amu mbañum ruus amoo kersa ne na na nga xam ne day diine day amoo ci dara ngir ne mbokkam ma nga ñàkk moo tax euh, amoo ci dara kon nit ki war nay sàmmonte ak li nga xam ne mooy euh, ay teggiin waaye war nay sàmmonte ak li nga xam ne mooy mbañum rus waaye li nga xam ne moo di euh, teggiin yu dox ci digganteem ak jëmmam ak lépp loo xam ne moo dàqonte ak diine war na koy sàmmonte bu baax a baax a baax mu ne wa salliman na nga nuyu ala les yi ca nga xam ne xaddimtaa njëkk nga alayhi ci moom in talabta ndem sàkk nga ta adduban ay teggin nee na su fekkee ne yàlla dafa dogal nga dajeeg nit jëkk ko gis nee na nang ko jëkk nuyu su fekkee ne ay teggin rek ngay sàkku nang ko euh, jëkk a nuyu euh, soo dajeeg nit kon bul xaar bam nuyu la waaye lay teggin ya mooy nga jëkk ko nuyu soo ko jëkkee gis su fekkee ne moom moo la jëkk a gis it moom mu jëkk laa jëkk laa nuyu waaye su fekkee yaa ko gis bul xaar mukk Euh, di ko làqatu bam lay gis wala yu demee noonu na nga fexe ba nuyu ko ngir ne loolu moo sàmmonte ak ay teggin moo bokk ak ay mu ne wa in yakun wa in yakun ndem nekk na ibtidaa salaami di aji tàmbalim nuyoo minhu ca moom faruddahu nang ko ko delloo alayhi ca moom bil kalaami ci ay wax saa boo xamee ne nag moom dafa tàmbali am nuyoo jëmale ko ci yow ne na nang delloo nuyoo ba comme noonu nga xam ne noonu la ko defee jëmale ko ci yow su fekkee ne daf ne la assalaamu aleykum wa rahmatullah yal na jàmm ak yërmande suñu borom nekk ci yow soo ko mënta fay lu delloo kem li nga xam ne moom la moom la la nuyoo ñaanal ko jàmm ak yërmande suñu borom nekk loolu nag su fekkee ne nuyoo bi dafa nekk ci ay wax waaye nag su fekkee ne wa xaysuma saafaxtuhu saa bu fekkee ne nag dangeen ngeen a saafuwante maanaam da ngeen a joxonte ay loxo di nuyoonte ku ne jox sa moroom loxo fa makki ni na nga dëgëral yum naaka sa loxom ndeyjoor min yum naahu ci loxom ndeyjooram bil mustaxsani mu di lu ñu rafetlu dana saa boo xamee ne nag suñ borom dafa dogal ngeen di nuyoonte di saafuwante joxante ay loxo nee na boobaa boo nuyoonteeg moom na nga jël sa loxo di joor dugal ko ci loxo di jooram ngeen dëgëral ku ne dëgëral sa loxo di joor ngir tuyaaba ji ngeen di sàkku gën a bari waaye ngir yiw wa nga xam ne moom ngeen bëgg gën a bari wala takun nag bul nekk naziaha aji not ci sab loxo xataa yakuna bate mu nekk huwa moom allazi mooy ka nga xam ne badaa tàmbali na bi nazain ci ak not ci xad yabiin goog dana bir nee na saa bu nga xam ne joxanti ngeen ay loxo nag ngir saafowante ngeen ku ne dëgëral sa loxo nee na bul sàkkoo mukk jëkk a nucci sab loxo ngir soo jëkkee nucci sab loxo yiw wa euh, ca ka nga xam ne moom mujj a nucci ab loxoom euh, ca la yiw di ëppe moo tax muy saako ci yow ne bul jëkk a rucci mukk sa loxo euh, lu dul ne moom dafa tàmbali di nucci loxoom bu boobaa nag ku ne mën a nucci loxoom ngeen dem waaye bul jëkka tàmbalee mukk nu ci sab loxo ngir ne bu boobaa kon yiw wa ka nga xam ne moom ngay nuyoonteel daf la ciy ëppale bu baax a baax kon bu fekkee aw yiw ngay sàkku ay teggin ngay sàkku boo nuyoontee ak nit bul yàkkamti di e, këf ay loxoom rek di dem wala kon ni nga xam ne noonu lañ baaxoo nuyoo léegi tàppante rek dem loolu bokkut ci ay teggiin kon bu ngeen nuyoontee da ngeen a war a jàppante dëgërante ku ne ñaanal sa bopp uh, sa morom jàmm su ko defee ku ne doog a uh, wéy ci li nga xam ne mooy ay soxlaam mu ne is ngir karihu sib nañ al ixtitaafa mooy fëggante ga al ay di ñeel ay loxo fi salaami ca nuyoo ba nee na dañoo sib li nga xam ne mooy këfante ay loxo maanaam comme ni ñuy nuyoo léegi di tàppante nga xam ne danga da ngay dóor sama loxo ma dóor sab loxo ku ne wëy dem loolu nee na dañ koo sib moo tax mu ne is ngir karihu sib nañ al ixtitaafa mooy këfante ga al aydi loxo ya fi salaami ci am nuyoo bi suraatin ci lu gaaw wa misluhu ak noonu tarku kalaami bàyyi ay wax nee na dañoo sib nit ki di nuyoonte ak mbokkum jullitam euh, di tàppante ay loxo rek ku ne woy jàll lu ñu taxaw nuyoo saafuwante ku ne laaj sa moroom bàyyi ak jàmm ngeen jàmm sante ñaanalante jàmm euh, bañ a def loolu waaye jël sa ñaari loxo rek kii jël loxoom kii jël loxoom ngeen fëggante ku ne jàll dem loolu nee na dañ koo sib bu baax a baax ci am tey dafa dàqonte ak ay teggin moo tax mu ne summa al musaafaxatu bil yadayni summa topp al musaafaxatu saafuwante bil yadayni ci ñaari loxo jumlatil aada bi bokk na ci Euh, ay teggiin misla zeyni kem ñaar yi nga xam ne moom la la wax nee bokk na ci ay teggiin ba tey tamit booy nuyoonte ak nit nga jox ko sa ñaari loxo ngir ne loolu dafa bokk ci ay ay teggiin yoo xam ne nit ki war na koy sàmmonte bu baax a baax a baax ndax koo jox ñaari loxo day xam ne yow mii de ku ko jox cër nga ku ko respecté nga ku ko jox wàccuwaayam nga te loolu dafa euh, bokk ci ay teggiin dafa bokk ci li nga xam ne nit ki war na koy bàyyi xel bu baax a baax a baax kon xam naa dañuy tuub bu baax te jégglu di wàcce foofu suñu kàddu di wax ne in uridu illa al islaah mastataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltuhu rabbul arsil azim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ala sahabati wa saadati kullihim ridwaanu rabbil araadi wassamaawaati ala saxaabati wassaadaati kullihim ridwaanu rabbil araadi wassamaawaati. sëriñ bi de sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey.